dégg nga dégg nga li Bass wax nee na moom moom xam na fi nga fi nga ni nga mel moom ni nga mel ak wasaare tey bi ngay anniversaire wax nga ko ko sa jabar bi muy anniversaire wax nga ko mais doomam arrière di anniversaire waxoo ko ko ba anniversaire bi weesu am na lu ko metti nag. maa ngi déglu sëñ Bass. maa ngi déglu man mii sax am naa lu ma metti. diilu maa ngi déglu wax dëgg si maa tooñ xam nga. Fatim Malick dafa bari wax daal da lay woo rek mbala mbala mbala ba nga fàtte li nga war a def. aywa lépp lu ma joxe ak Fatima. ku baax la eh c'est mon ami. non Fatima ku baax la. dëgg la xol bi dafa rafet. nit ku baax la ni mu gàtte noonu la gàtte pexe ah la sobe c'est mais mais aussi bi ma wooyee ne ma damay ñëw ah ak ma ne ko ñool parce que wasaare sama site la quoi bilaay walaay mais maa ngi jéglu sëñ Bas wax naa ko wax di la jéglu di jéglu ñëpp di xamal leen ne fii vraiment sama télé la parce que yow dangaa man maa la bëgg sañ Bas mii maa ko bëgg yow yaay dil Kébé kii sëñ Basiru c'est ça sëñ Bas ak dil bés andee du neex Fatima dem na ne ko dem na Fadima dem na Xaaj TV ne na jërëjëf wulli jërëjëf ñu bàyyi ko kon mu gërëm ndax nee day gërëm lii moom émission la bu jëlee doon léegi faaf ay ca waaw di gërëm karaam mooy sama xarit Serif faatu mbay di gërëm Ibrahima Ndiaye oto di gërëm Aada Dieng borom suuf day jaay suuf di jaay béton aada Dieng di gërëm Salimata Dione sama soxna Mbay Joob Amina ak Ndey Marème di gërëm sama groupe whatsapp bi lépp sami do wulli ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm Ibrahima Ndiaye oto mbay boos moo solal li ma sol tey mbay boos samay solal lépp lu may sol mbay boos ma koy jox dafa baax mbay boos maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax mbay boos kamasaala jërëjëf jërëjëf wulli jërëjëf mbokk yi